sindu jammi bom ma ci xam dara lépp lu yëngu yow di kontaan sénégalais yëpp di kontaan képp ku bëgg Pawlish képp ku si daan Pawlish ma nga lay bégee di la baal ci weeru ci weeru seetlu wi show ramadan weeru ngëneel bala de weer li nga xamné sun borom moko mo wol boppam bala ñep ak nak ay balu Sénégal ak adina France Espagne képp kuy ñoy rek ma lay baalu ak ok bala ci tax nga blangé ki da nga doon ñaan xanaa waaw damay ñaan yalla mu ma ci mhm. ñaan borom ma ci chat mais ce se que rendez-vous ni lay bari pour def ak sa émission problème la. waaw sante yalla dama nek xalé té a njabot té a njabot ñi yëpp seen njaboot lañ. njabot bi wax sama xarit lañ. hmm laa ñëwal parce que ñun ñëpp benn lañ ben nek pi la am. donc ñu ma fekk ñuy togg di yow yaa leen jox dépense chaque jour. waaw sante yalla kessé na mo ko ku ku ñàkkoon commencé am tuuti da ngay partager ak doomu adamay may partager nit ñi. Hmm. parce que ndox ma defal li dem da nga doon dem lekk kër jàmbur yow. ay deux ans ou trois ans ci ginnaaw wala. non yàgg na yàgg na lool. Hmm. xam nga ñun dañoo judd ci ñàkk. léegi ñun nag euh, koor bu mu jot benn repas am muy ndogu su may ndogu ci jàkka lay ndogu ci jàkka ji lay ndogu pour mën a lekk ba suur. Hmm. damaa xam jàkkay Pikine ñëpp laa xam. fii jàkk xam naa ko parce que foofu laay ndogoo. foofu nga doon ndogoo ji. waaw ok Pawlish pour ñu ñëw ci actualité bi ah. yow lan la jot ak Fatou Laobé. sama yaay la. Euh, yow Fatou Laobé du sa yaay de. Ah, nu ngeen di yekkante temps yi ci deux jours yi ci internet bi. c'est trop xale bu juumee. waaw ah. ci yaayam. Hmm. yaay tey xale bi day baalu yaayam. kan juum yow. man sama yaay parce que sama yaay la xale laa damaa nekk ci yoon. bëgguma lu ma gàllankoor bëgguma lu ma fa xasal te ay waxi mag dafa doy waar surtout ma waxi koo xam ne moog sama yaay neexoo nañ parce que ba du may xoolee sama yaay moom laa koy xoolee léegi su ma demee ba may kaf ak moom di fo ak moom ku ne xam ne man sama lépp dama koo jàppee foo waxi dof def ma dara ci àdduna lu muy lu sérieux maa soo soog a def lu sérieux muy tey

man sànq rek bu ma toogee sa téléphone mu ngi sonné ay kilifa ñu ngi lay woo naan Pawlish. waaw parce que bàyyi mu sedd am naa ay kilifa ñoo xam ne dañ maa woo te su ma woowee dinaa dinaa leen jox jox li mu ok bi nga defee première vidéo def deuxième vidéo mu def sorti lan moo tax mu a woon arrêté foofu. mais fo la man damaa jàpp ne ñëpp a yem man damay fo damay fo ci weeru koor laa dee. barke Seydina Muhammad ku ma xam-xamay sama maam laa bëgg man sama maam laa bëgg ak sama kereer ñàkk xew yi laa gën a laa gën a bañ sama àddina ñàkk xew yi waaw kon vidéo bi bu naa ko mu xew yi yal ma tàggee sama maam man Pawlish yal naa xew yi dama nekk ci aar bu xewee du dimbal njabootam su wayetul ni ay njabootam duñu duñu xam seen yaay fu mu leen féete li may video bi man video bi ma def nii dama fo. premier bi da nga ko doon fo. lépp bu nekkoon vingt ans vidéo dama doon fo barki démb démb laa def vidéo waaju dafa sax ci xol. Hmm. sama yaay léegi la mu jëyee di coupé ma di jooy musuma sama yaay musa joy sama karam. ndax Fatou be, li nga laal Fatou Laobé. xaaral rek sama yaay musa joy sama karam. mos a ma man ba jooy sama yaay mosuma do musma saaka. mu sa wax ci moom lu ñaaw te du ko def parce que taxaw naa ko waaye doom lu moom jox naa ko ñoo ko danoo ñàkk nag mais danoo ñàkk ñàkk koo xam ne ñàkku ñàkk gu doylu la ñàkk boo xam ne ñu danoo doylu tey koo xam ne danaan Pawlish itam danoo ñàkk mais danoo am ful la sama yaay xamul waayaam xamul lu xamul ci lu bon barki xam Muhammad maa ngi sa a tooñ sama yaay muy man maa ngi koy mos tooñ muy lii sama yaay si affaire farlo bi lan moo tax loo xew parce que ñu ngi ko ciy tuddaale farlo bi da ko ci tudd te yaay yaay dafa sax ci nit moo am na doom nag ay doom te ay ay doom bu romboon da naan ko Pawlish kat mi ngi tooñ sa yaay ni muy def ci sama yaay moom noonu lay def ci ay doom mais da ngaa bëgg a kuloo débat bi du du kuloo dañuy waxtaan babs ko tooñ day jéggalu ok man dama koo tooñ mu nekk sama yaay te sénégalais yi man dañ maa bëgg dafa fu ma teg ma yàq sama image pour ma def loo xam ne kaf rek ma ci jublu woon kaf kaf moo jublu woon barke Seydunaa Muhammad ak weeru koor gi mm-hmm. bu dee yéene naa ko lu bon man yaa naa ci jiitu bu dee yéene naa ko lu bon yaa na këpp sama yaay ba bi may xoolee sama yaay xoolee parce que alxuraanu kañ tey bu laal woon sama yaay doo ma a doo mës a wax ci moom lu ñaaw dama doon fa ay fo dama doon def fa ay fo kese bañ a yor nga numéro Fatou la woon. xaw ma numéro ko xamaanuma barke salaatul faatiha c'est la première fois ñu sànni di ay te tey kaf laa ko ak yoon su ma neexoon xool ñi xew bari na su ma neexoon tudd ñooñu te ñi ma tudd ñi xew yi ñëpp barke alxuraan kenn waxu ci dara ñëpp dañoo maan di kaf ak di man ak moom di wéy xam naa ne moom xew yi dafa moom fi mu ko teg te du foofu. mais nii nii nii nii nii nii su ma ko wowoon foog nga jégalu en direct nii tu vas le faire. non loolu dafa doy hmm. dafa doy waar xaw ma xaw ma fu mu toll. Hmm. xaw ma fan la toll fan niveau mu toll. Hmm. man mii di xale. Hmm. Ah, yàgguma ci aar. mais hmm. maa ngi commencé aar. yàgguma ci aar yaa ngi koy yàq aussi. si parce que intention balaa jëloo intention yàq aar. yàq parce que li ngay wax parlo bi parlo est que du mer bàyyi aar. non du mer parce que jàpp na jàpp ni sët sëtam mooy wax ak moom di jàllale ay message ñu bari ay kilifa. Saaneex woo na ma xam nga këram. xaw ma xaañu waxtaan ak Saaneex woo na ma. Saaneex. woo na ma Saaneex Samb. waaw ku baax la. ku baax la. Mhm. heure bu ma nekkee ci ay tolof tolof damay woo. ku baax la waaw. ni ma Pawlish man quoi ah, man ma li nga def du yoon du dëgg du yoon bët bi nga xoolee sa yaay xoolee ko Fatou Fatou Laobé defal vidéo nga baalu ko àq ma dégg ndigalam Amady Badiane. Mhm. Amady waaw ku baax la. fii la mujjee jógee sama kër ne ma li ngay def ànduma ak yow da ngay foog am na ñoo xam ne. boo demee ba ba ba ba kafatuñu da nga reculer baalu ko parce que Fatou li li mu def ci aar nit du ko gaaw def ci aar baalu ko àq ma nangu man damay nangu man dama ne xale boo xam ne parce que di boo bee sama xol bii ak ma suul sama ndey baax nga ci fekk maa gën a baax ci lu yàlla bind musuma wax ne sama vidéo mën ngaa xool sama vidéo yëpp li ma def ci vidéo ëpp na 500 vidéo musuma saaga doomu aadama musuma dépassé yaay jàmbur parce que bu ñàkkee war doon nangu di toroxal yaay jàmbur que foofu laa toll ci niveau boobu aw ma xale laa lu ma am sama famille laa ko yóbbul toxuma naan ma def ma lu bon barke alxuraan karim bu dee dama laa dépassé yaay booy ak wéru koor bi wéru li di wéru ngeen man ma lay balu ak ma lay balu ak ma lay balu ak ma lay balu ak bu baaxa baax ak bi nak dama la togn te togn jéggalu amna barki alquranu karim ak mo sul sama nek son bay bu dee dinaa waxat ci yow lu ñaaw suma dee vidéo yàlla naa génn àddina pare nga ci barki mu xam nga doon mu ci àddina bu dee dafa wóor sit ndax man la tëjaat ci bi parce que do nga waxate mo mais jàppoo ne aussi dem këram yobul ko teranga. non non dina jën jën na peñe. ah peñe ok. jënd na peñe. jënd na peñe. jën jënd na peñe. jën jënd naa peñe. jënd naa peñe. yëkkati yëkkati cinq cent mille. cinq cent mille. ko ci tegal parce que. parce que am naa am naa ay kilifa ñoo xam ne. dañoo bëgg pour parce que man kenn xayoo ma coow. sama yaay la li may def ni wut ma ko dama xam ne su ma tooyee sama yaay man fii laa koy defal parce que yaay dafa sax ci nit moom sama yaay la. kon suba di nga dem këram. soo mënta dem dinaa yónnee. ni nga yónnee mu dem fa. mais comme sa yaay la est-ce que doo déplacé wu dem këram. déedéet parce que xaw ma état bu mu toll. mais fàttaloo bi ku baax la ku baax la. ku soo ko tooñee da maanaam. barki Mouhamad foo rek laa ko jëlee woon foo ak kaf. billaay wax di baalu Sénégal yëpp. pour nga xam ne Sénégal yi jàmm lañ bëgg. ah monde bépp a ma woo. Pawlish Baalu mais sa téléphone léegi mënuñ def émission. monde bépp a ma woo Pawlish Baalu parce que xëy ma lii ah artistes yi artistes yu jigéen ñi billaay ay kilifa barki alxuraanu karim billahi wallahi faatu geewal léegi la coupé man faatu geewal men yaay yaay man ko jawab ku baax la yaay police man ko am no faatu lobé sa yaay la balu ko ak teew vidéo bi est ce que tudoo ci faatu faatu geewal sax tudd nga ci city waaw ñom mu ne ma mu ne ma demal balu ko ak parce parce que sa yaay parce que ku la mat yaay doo ko dépassé demal nga balu ko ak di rafetlu sa neex bu baax a baax waaw sa neex sam la ma nekkee ci ay détails ñoom ñoom jiitu ci aar ñoom ñoo ma a xam aar ma wax ay rëkki defal lii ak léegi lii ma di bajaan kon damay baalu sama yaay parce que doom bu toonee yaayam da koy baalu mm-hmm. tey man rus naa di jooyloo sama yaay mm-hmm. rus naa di wax ci parce que Sénégal yi dafa dafa fu ma teg damaa ñàkk ku luy wax nii dafa am damaa ñàkk. kon ok moom parce que gis naa vidéo am léegi mu lay xas kër yow yoroo te nga ñàkk ci famille bu laa nekk. pauvre boo koy assumer quoi dama sant yàlla dama ciy daw dama ci daay bu ñàkkee day assumer ne dafa ñàkk du ma ni mos damaa yor ñun ci cas social lañ dëkk si lañ nekk te yàlla xëyul rek lépp sotti bés mën na am ma teel a teel a waajur. mais Waly woo moom sama kilifa la. Mhm. waxtaan ak man defal lii ak lii ak nga bàyyi mu sedd. non parce que maa tooñ xam nga nit ki kenn du ko farafal rek. maa tooñ damay baalu. mais coow coow lu war woon egg si fii parce que dama doon fo. amuñu nag du ñaan kenn. su barki ma nga defar ko. barki parce que mënu ma parce que ci mënuma defal lenn loo xam ne mënuma ko apporter dara ci ci way. waaw mais. mënuma ko apporter dara ci àddina. Hmm. li ma mën a apporter bisu tey jii. Hmm. ñu baalu ko àq. ndeysaan. muy sama yaay la pour maa tàngal xolam te dama koy xoolee ni moom dama koy xoolee ni man sama yaay parce que yaay dafa sax ci nii ay doomam mën nañoo génn ñu ne politique wax leneen sa yaay man sama yaay mën na génn xam leneen ñooy wax sama yaay sa doom bi lii ak lii dama koy xoolee ñaar dama koy xoolee ci ay doomam. ma ne ma xoolee ko sama yaay sama yaay Fatou Law maa ngi lay jéggalu di la baalu maa ngi lay jéggalu di la maa ngi lay jéggalu bu baax a baax di la baalu parce que sama yaay nga damay fo rek. billaay wallaahi li ma dem ni góomu ko sax damay fo rek. su ma dépassé doomu aadama te ñaan ma yàlla dépassé la su ma naree yàpp wala ma dara aw ma dara loo xam ne ma koy yéene ci lu bon amul kenn ku nekk sama ginnaaw amul ku kenn koy wax loo ci yow. waaw ah, que moom mu ngi ne mu ngi ne ci biir sortam ñu nekk sa parce que parce que cool yi xam ne du ma xam fan la. Mm-hmm. parce que lu bari mën na ci jur te or que ni amul barke mu xam man kenn waxul ci man lu ginnaaw muy ci lu bon ci moom loolu demal nga jéggalu parce que sa yaay la kon leer du mbindeef man amul nit am naa màkkaama boo xam ne am naa ñàkk goo xam ne am naa dignité goo xam ne yaa ko tollu ma ba moment bi nit di ma wax loo ci àddina parce que billaay wallahi kenn amul ñoom fawlu ci a lii nit loo wax maa ko wax sama bopp parce que waxi dof laay wax na jàpp lu waxoon ne waxi dof la waxi xale waxi folie des fois nga am folie doo xam mm-hmm. loolu looy waxati di kaf kaf rek laa ko jëlee ak folie des fois débat si sa dab la xam nga ku ñàkk ku ñàkk ba commencé am ay cent franc lu bari dalay dab damaa ñàkk lu bari dab ma sama yaay maa ngi lay déggalu di la baalu àq. non oh. non oh. non mais Pawlish comme jégal nga ko rek jarul jarul jarul jooy quoi comme jégal nga ko rek ah. suñu yaay suñu yaay ku baax la non jarul ko Pawlish suñu yaay ku baax la donc Cheikh. kay kay kay kay kay kay kay may ko ndox mu naan ah kay may ko ndox mu naan aussi euh, Fatou Laobé miin naa ko mos nañ tase Italie donc xam naa ne ku baax la te dina la dina la dina la dina la jégal ci weer koor bu ñu nekk te man maa ngi seetaan léegi vidéo lu mu mën ta wax day ne ci weer koor bu ñu nekk et puis euh, dina la ko dina la ko jégal incha allah rabi hmm? dina la ko jégal dina la ko jégal incha allah non non xam naa dañuy dañuy dañ fiy dagg émission bi rek ah dañu fi dagg émission bi so oh. hmm, maintenant ah na trop trop xam dara hallelujah, oh yeah, hallelujah.